bu nguur gi amalee tournée économique ci région bu Sédhiou ñeenti téeméeri milliards nag digge nañ ko ngir sokkali mu nekkoon doxum nemmeeku ak ay digle yi nga xamante ne ñoo koy waxtaanee ba tey ndax mun na sotti waaw wala déet économiste bii di Mor Gassama jàpp ne lu mun a nekk la. Euh, président war na am ay astuces yoo xamante ni bu ñu ko mettre en place dina dina euh, beneen bi mooy ne mën nga uti xaalis aussi koppar ci suñu partenaire au développement donc dans tous les cas li ci mooy volonté bi. bile koppar bi nga xamante ne nguuru Sénégal xam xamle ne ko mun na rek dalal xelu askanu Sédhiou Mor Gassama di lu bu Sénégal. nag la mu ñoŋal la liggéey bi ci secteur mbay mi. loolu ci am solo moo ne bu ne yaa ngi bay ba pare di transformer day permettre ñi nga xamante liggéey ñu mën a capter le maximum possible la chaîne de valeur seetlu nañ aussi ne dëkk bi amul sax ay dëkkuwaay yu mën daal nañu maanaam ay hôtel ah, donc foofu aussi je pense que war nañ ci mën a jublu bu baax a baax parce que boo bëggee développer tourisme aussi faw nit ñu am fu ñu mën a nekk. mu soxal gis-gisu politique visite bile ci région bu Sédhiou nekk na porox ndollu ci camp présidentiel bi moomee nga xamante ne tax na rek ñi mobiliser ay militants bu APR naka noonu bu benn Bokk Yaakaar tabaxaat seen base laata élection présidentielle yi ñu nar a amal bu 2024 mu nekk jalon bu njëkk bi nga xamante ne coalition Benno Bokk Yaakaar teg na ko fii. ñu wax ni lu mu doon wut am na ko ndaxte euh, élection locale élection législative am na lu ñu wone moo di nekk APR euh, dañu tasaaroon loolu moo tax ñu perte benn aussi ak APR jubawuñu woon tellement. ay fan yi nii déplacement yu gouvernement bi ci ay région nag bëri lool objectif politique bi nekk na loo xamante ne jàppandi nañ ko soxaloon mobilisation ak déggoo ca base ba analyste politique ak économiste yi jàpp ne rek xel mun na dal ci chantier yi ñu wéyal ko bu fekkee ne sax 2024 li ci des bëreetul.